xaritam bi génn na mu ne ay 19h ba dimanche 20h ci ngoon mi ngi woon ak Aziz xam naa dafa ñibbi rek ñu rey ko ci dimanche bi Soukayna nee na moo ko yóbbu woon dimanche clinique Soukayna tamit waxaat na ba tey ne frère bi nee na tamit samedi la ko yóbbu woon clinique kañ la demoon clinique dimanche demoon clinique wala samedi la demoon clinique Soukayna kenn mënu koo setal li mu war a génnal Sénégalais yi leeral mooy kañ kañ la su kay na yóbbu woon ci clinique bi. ah ki nga xam ne moom mooy Aziz Dabala fan la ko yóbbu woon fan la ko yóbbu woon ban clinique la fan la enregistré wu ñu dem xool tur bi ak kañ la fa demoon ba muy ñibbi moom moo ko gunge ba tali bu bees mu jël taxi dem ñibbi këram samdi samedi bi ah samedi samedi bi ci boppam su kay na moo nekkoon muy Nabou lay Yirim ak Boga ak Aziz dabalaa nabulay moo togg añ bi nu añee samedi kan moo fa nekkaatoon parce que ray bi du kenn nit de rey bi complexe la kenn defu ko nabu maanaam ki nga xam ne moom moo rey Aziz Dabala ak Waly moo jël seen téléphone ñoom ñaar publier vidéo yi dem ci compte Aziz Dabala daa di fay publier vidéo bi bind ci danger bëgg a tuumaal na bu lay suruxal ko mais du Aziz moo publier vidéo yi de même personne bi moo dem ci compte Wally publier vidéo bi sans filtre na bu lay bu mënee tuxu na tuxu bu banee dem feneen na fa dem ndax ki rey Aziz balaa mën na ko bañ a bàyyi mën na ko rey à tout moment parce que da ko naroon a suruxal ci vidéo bi comme si que Aziz moo ko dugal déedéet léegi nag dafa am complice bi ne complice bi fi mu commencé mooy vidéo bi Aziz Dabala defu ko nabu Leye defu ko Waly defu ko kan mooy quatrième personne bi def vidéo bi bu nu ko xamee xam ki rey te loolu nag Nabou Leye rek moo ko mën a wax ci li ma yaakaar danoo menacé Nabou à mort ne ko boo waxee ma rey la kenn mënu laa garanti moo tax Nabou ba tey waxul mu téye la mi ñam mais Nabou dafa war a génn leeral Sénégalais kan moo def vidéo yi kan moo nekkoon quatrième personne bi ak kañ la yóbbu ci clinique bi ah? Aziz ba mu feebaree samedi la a dimaas ak ba mu koy toggal añ ci samedi bi kan ak kan ak nekkoon ci kër gi. lii bu nu ko xamee enquête bi leer wasalaam 4 million nag yi ma King Saliou jox nee naa leen faaw deux 200000 mille du duma ko joxe dugg leen sama bio TikTok bi ngeen bës link Telegram bi ngeen abonné gaaw mu ma 200000 abonnés ma sédd la xaalis bi jër ngeen jëf. nii moom mooy Aziz Dabala mi nu faat ñëpp ak may xaar. Sénégal ñépp ak may xaar réew mi ñépp di ma déglu Adama waxal yaa war a wax Adama yaa téye dëkk bi yow la ñuy xaar jublul ci kaa bi man dama baax Sénégal gars yi danaan Adama dafa bon déedéet Adama dafa baax ci réew mi parce que man lu waay ragal a wax maa koy wax te nag li ma neex mooy man ku ma woo téléphone nga jël ma dangay dégg ay nit naan waaye Adama lu ñu waxee moom li tax muy woo nit ñi ñi ñoo ña barki Serigne Babacar si ku ma yëkkati sa téléphone ne la aloo nga ne ma allo te dig ma déglu man rek la ko yàlla may senegal man ku ma ne allo dig ma wuyu. Aziz Dabala dana koo fekk ci biir appartement wam Aziz Dabala appartement bi mu dëkk dëkkul deuxième. dëkkul troisième dëkkul quatrième première étage la dëkk kon am na kër yu nekk ci kaw moom mu doog a ñëw première étage fa la Aziz Dabala dëkk am na deuxième am na troisième ba quatrième première étage la dëkk Aziz dana ko fekk ci biir appartement wam benn néebam bu ni wax naan jarbaatam la muy waali foofu damay dalal xel rek parce que waali nekkul jarbaatu ki nga xam ne moom mooy Aziz Dabala déedéet waali papam dafa génn àdduna moom mu bëggal boppam Aziz Dabala ba di ko woowee papa looloo tax Aziz récupéré la ko ñuy nekk ñoom ñaar du jarbaatam de déedéet papa sax la koy woowee papa lay woowee Aziz Dabala damay bañ ngeen di jaawale du jarbaatam Aziz Dabala danu koo rendi rendi lan ko def jamuñu ko de danu koo rendi tëral ko daal di koy dëpp mbuur ko ay sër waali dañu koo jàmpaaka rocc ko ba butit yi di génn ñu dugal ko ci saldebe bi bàyyi ko fa léegi damay ñëw ci nabu lay kii mooy nabu lay moom la ñuy wax sukkay la nabu demoon moom nabu lay ak yirim ak boogaa kër gi nga xam ne moom mooy kër Aziz Dabala añ bi nu añee keroog nabu lay moo ko togg déglu leen ma bu baax nabu lay yirim boogaa ñoom ñépp ñoo nekkoon kër Aziz Dabala falan añe na boo togg añ bi ba dimanche Aziz Dabala bi mu feebaree ñee ngi naan samedi ñii ngi naan dimanche dama bëgg ngeen déglu ma de ñii ngi naan samdi ñii ngi naan dimanche am na benn feereen bu génn ne Nabou Leye moo ko woo ne ko ay fana ngi nii maa ngi woo Aziz mënuma koo jot yaa ngi dégg ci dimanche bi maa ko yóbbu clinique maa koy woo mënuma koo jot nan fa dem ba moom moo wax nan dajji buntu kër gi loolu benn interview la mu tudd ci ne dimanche la ko yóbbu kilinik su ngeen demee ci Dakar live même waa ji waxaat ne moom Nabou Leye samedi la ko yóbbu clinique ñaari version yu bokkul yóbbu ko clinique ba nu wëññeekoo ñii ne leen Aziz moo moo yónnee boppam ñii ne Aziz ba ah ba mu wëññeekoo Nabou Leye mii moo gunge Aziz Dabala ba tali bu bees yaa ngi dégg mu jël fa taxi ba mu jëlee taxi daadi di départ ak taxi bi jëm ci appartement wam ba mu yeggee dugg ci fast food bi ab 2000 francs daal di fay borom kalandoo bi léegi nag waa ji ngeen gis waa ji ngeen di gis nee na 19 dimanche ci 19h ci ngoon la ko ak Aziz lundi bi woowu ko yow boo nekkee nit mu feebar dimanche ci ngoon 19h xanaa lundi boo xëyee di nga ko woo téléphone ah non fanaane naka jàmm ji naka yaram bi. wala du dëgg gaay boo nekkee nit dimanche ci ngoon boo xëyee lundi doo ko woo. ci feebar bu métti nga ko bàyyi mais boo xëyee leen di nga woo ko 19 heures 20 heures nga nekk ak nit léegi pour mu leer ci seen bopp yi lu ma leen di wax man Adamo li ma jàpp laa leen di wax te loolu moo am mooy Aziz Dabala réyuñu ko dimanche mais samedi lañu ko rey déglu leen ma bu baax kii nee na effectivement ay yuuxu la dégg kañ la ko dégg ana borom kër gi ma génne ko nee na dimanche dégg ay yuuxu noo kii rakk ji la euh, chef de quartier bi ana moom lay laay génnee nii chef de quartier bi chef de quartier bi gis gisuma photo bi mais dangeen ngeen comprendre samedi la dégg ay yuuxu euh, ma ñëw maanaam bu ngeen bëggee dégg-dëgg Aziz Dabala kenn rëyu ko dimanche ci li ma jàpp samedi lan ko rey léegi ki nga xamante si nii moom moo rey Aziz Dabala moom moo génn joxe dimanche pour leeral xeru Sénégalais yi lan mais samdi la nu rey Aziz Dabala yaayam nee na quatre jours gisul Aziz Dabala samedi la nu ko rey léegi ki ko rey nag moo publier vidéo bi def benn vidéo ci compte ah euh, waali mi nga xam ne génn na àdduna defu ci filtre danger dem jël vidéo bi mu def filtre danger dugal ko ci compte Aziz Dabala ñaari téléphone yépp moom moo ko yóbbaale moo publier vidéo yi du Aziz de samedi la nday Aziz Dabala kenn reyu ko dimanche baa leer na léegi nag damay alerter ki may alerter kii la muy Nabou Leye non kii faatu la ay waay faatu yaa ma solal nga ne xujj nii menet tee ñu nag Nabou Leye dama bëgg Nabou Leye mu def vrai attention parce que ki rey Aziz Dabala mën na koo rey moom bu dëkkee banlieue ne dem tuxu dem dëkki feneen parce que ki rey Aziz Dabala Aziz Dabala kenn reyu ko de dafa am ay complice léegi nag suspect yi mi ngi ci biiri xaritam mu ngi ci ay biiri nitam lii lu yomb la pour police ko ay suspect yu Aziz Dabala ay xaritam la ak ay nit yu koy fréquenté ku ko xam la léegi Nabou dafa war a def attention sinon dinañ ko ci compte Aziz Dabala publier fa c'est moi def ay affaire def ay filtre danseur pour suruxal Nabou ñu ne waaw Nabou moo ko filmé déedéet am na keneen ku doon filmé du Nabou de léegi Nabou nag moo war a génn wax ñu ki doon filmé vidéo yi kan la du Aziz du moom kan moo doon filmé vidéo yi du nabu de nabu filmé wu ko de Aziz filmé wu ko am na keneen am na keneen ku doon filmé nabu na génn wax ñu ko doon filmé man damaa intelligent bu ngeen di demee ay day man xel laay demee Aziz Dabala samdi lanu ko rey reyuñu ko dimanche waa ji nee na waa ji nee na dimanche ba dimanche ci ngoon danu ko reyee ba pare danoo sàcc ñaari téléphone yépp bu waali dañ koo yenu yóbbu euh, danoo yóbbu waale bu Aziz dabalaa ki ko rey moo publier vidéo yi ñaar yépp ci ñaari compte yi def fee filtre fee sans filtre samedi lanu ko rey mais reyuñu ko dimanche xel nangu na ko wala ku nekk jàppal lu la neex man jàpp naa ne Aziz samdi la génn àdduna sama sama yëfu bopp laay wax waaw yéen mën ngeen a jàpp lu leen neex waaw man man ma jàpp li ma bëgg a jàpp waaw ku neex jàpp la neex waaw léegi ki nga xamante si nii moo rey Aziz Dabala moom moo génn léeral xelu Sénégalais yi daan waaw dimanche xam naa la ko rey damaa dem rek ñu rey ko nangam nangam ci dimanche bi mais bu ngeen analyser yor ay xel da ngeen xam ne Aziz samedi la nu ko rey waaye kenn reyu ko dimanche jàpp leen lu leen neex nag waaw. non accusé wu ma borom kab bi de accusé wu ma borom kab bi de damay jàngale man ma jàngale sama xalaat dem leen xool vidéo yi ñu publier Aziz publier wu ko de Aziz publier ko de de ki leen rey ñoom ñaar moo publier vidéo yi benn bi mu dugal ko ci compte Wally benn bi mu dugal ko ci compte Aziz Dabala dem bi ci Aziz Dabala bind ci danger wane na bu bëgg a suruxal na bu ne na bu moo filmer vidéo yi pour dugal ko kii bu jekkoo na bu da koy rey na bu bu amee fu mu dëkk dafa dëkk mais bu dëkkee fi mu dëkk ba tey ni nu def Aziz Dabala lañ koy def ci rey ko lan jëm man li ma lay wax dafa leer nabu bu noo tuxu def traitation attention li ma leen wax dafa leer dañ koy rey comme ni nu def kii dañuy def na bu li ma leen wax dafa leer samedi Nabou Leye moo ko togg moom ak Aziz Dabala ñoo nekkoon ci kër gi ak ku ni wax yiir Yérim ak Bouga ñoo añandoo léegi nag benn problème moo am foofu maanaam vidéo yi kan moo ko def moom la Nabou Leye war a génn leeral ndax na Nabou deful vidéo yi boo ko gisee wane na léppam deful vidéo yi waali deful vidéo yi kan moo filmer vidéo yi kan la kan mooy troisième personne bi wala quatrième personne bi loolu nabu moo ko war a xam léegi nag gars ray bi ñu rey Aziz Dabala déedéet kenn nit reyu ko de ray bi dafa am complice lu nu tëgg la dafa am ci ay nitam ak ay am di jàmmam ak ñu muy fréquenté ñooñoo ko sàkkal pexe wër ko ndomba rey ko ci ñooñu la ñuy gëstu suspect yi mi ngi ci ay nitam suspect yi mi ngi ci ñi ko gën a jege ray bi du kenn nit de déedéet complice la àndal kii man maa leen ko wax kenn nit reyu ko de. àdduna bépp ak may seetaan boos day néegri lépp fii lay leere léegi nag fenn lan mën a sukkandiku mën a xam Aziz Dabala samedi la nu ko rey wala dimanche man damaa jàpp ne samedi la nu ko rey ndax grand frère bi nee na dimanche ci ngoon labu lay moo ko yóbbu clinique beneen interview Dakar live maa ko mu ne samedi la ko Nabou Leye di yóbbu interview ñaari interview ñaari médecin bi na génn wax perversion bi kañ na ko def kañ ba kañ comme que doon ko yóbboon clinique ban clinique la kañ lañ def perversion bi ñu xam kañ la assisté samedi la wala dimanche si mën na génne heure exact bi mën na génne jour bi si mën na koo génnee non température yaram bi sax dañ ko ciy xam nit bu deeyee chaque une heure de temps et demi degré bi day wàcc danan xam heure exacte bi température corps bi muy àndal mën na mën na wax heure exacte bi kañ la dee. lii mooy kaa bi lii mooy sama jàngat te sama jàngat foog naa yenu na maanaa te lii ma leen wax tamit xel nangu na ko du ma accuser borom casquette bi du ma accuser kenn mais man li ma jàpp laa leen di wax ne leen Aziz Dabala danu koo rey samedi ba pare jël man li ma jàpp laa leen di wax man li ma jàpp laa leen di wax ke Aziz Dabala danu koo rey samedi ba nu ko reyee samedi ba pare ñu nangu seen ñaari téléphone yi yóbbaale ko dimanche ñu publier seeni i yaa ngi dégg bee ñu def ci dans filtre ba la ñu def euh, bàyyi ko noonu dama ne la léegi da génn xam nga man man naa rey nit samedi dimanche ma génn sama xarit la sama doomu ndey la dimanche doon naa déggoog moom rey gi xam naa dimanche suñ ko rey wala lundi déedéet yow samedi fa nga añi samedi fa nga nekkoon yéen ñëpp ko fréquenté dimanche nga jóge fa nan nga mën a jógee dimanche nga xam ne da xanaa damaa dem ñu rey ko déedéet Aziz Dabala la dee. dëkkandoo bi nee na samedi la dégg ay yuuxu sama gis-gisu bopp la yéen jàpp leen dimanche jàpp leen lundi man maa jàpp ne Aziz samedi la dee deewul dimanche ku nekk ak li nga jàpp rek waaw man moom sama sama gis-gisu bopp laa leen di wax waaw bu ngeen jàppee dimanche wala lundi yéen la waaw. dañ koo kompaloo ray bi dafa am ay complice mais ku jege nabu daal bu mënee wax nabu mu def attention na ko def bu dee dafa dëkk foo xam ne nii baaxul na dem tuxu dem dëkk feneen ndax ki ray da euh, ki rey Aziz Dabala à tout moment mën naa ñëw daal di rendi nabu parce que fi mu toll nii li mu doon def nii dugal nabu la. ndax compte bi nii vidéo yi ngeen gis Aziz Dabala publier wu ko de ki leen rey moom moo ko publier ndax moo moo sàcc ñaari téléphone yépp moo jël téléphone Wally moo jël téléphone Aziz Dabala moo publier vidéo bi ci compte Aziz Dabala marché na nabu bind ay affaire danse teg dem ci compte Wally dugal ko noonu vidéo bi kese sans sans effet danse niwu fa dara niwu fa même personne bi la moo publier vidéo yi du Aziz de kooku dafa bëggoon a dugal nabo pour gars yi jàpp bu comme suspect mais na bu tamit li war a génn leeral sénégalais yi mooy kañ Aziz exactement ci clinique bi ndax ñi mu ngi naan samedi ak dimanche permission bi kañ lañ ko def ak tamit kan moo filmé yi nga xamante si nii moom la ñu partagé si paasu Aziz Dabala ak waali lii mooy ay kàddu nabu nabu lii la war a génnal leeral sénégalais yi amul leneen lii kese man maa jël Aziz Dabala yóbbu ko clinique ban clinique nga ko yóbbu clinique nangam ban heure ak ban jour la woon ba nga toggee añ bi kër Aziz Dabala nekk fa Yérim ak Bougane nan la demee ba nga ko gungee mu jël taxi ba wàcc ba dem këram nan la situation bi demee parce que nabu li ñaawal xelu sénégalais yi mooy nabu moo yëkkati téléphone woo fareeru Aziz ne ko mën de deux jours a ngi maa ngi woo Aziz mënuma koo jot nan dem seeti ko nan dem nan dajee buntu këram ñu dajee moom moo joxe sax ne nan dajji kër gi tamit nabu tamit tamit ah dafa xaw a kii quoi affaire yi dafa xaw a doy waar waaw léegi nag na man aadama bos day néegri munuma laa setal mënuma laa setal de nabu munuma laa setal man li ma mën a wax mooy yaa ko yóbbu clinique samedi yaa togg añ bi Aziz laa lekk te yow yaa fa nekkoon ak Boga ak Yirim yéen añandoo fa ngeen nekk ba dimanche loolu man xam naa ko te leer na ma yow nabu Aziz yow ak Yirim ak Boga yow yaa togg añ bi yaa ko toggal añ moom Aziz Dabala léegi li ngay génne di leeral Sénégalais yi mooy kañ nga yóbbu Aziz Dabala hôpital ban hôpital nga ko yóbbu woon ban heure la police dinañ def seen liggéey ba pare nga wax ñu Nabou kan moo filmé vidéo yi nga xam ne moo dugg ci compte Aziz Dabala ah ak ki nga xam ne moom mooy compte Waly parce que yow filmé woo Aziz filmé wul Waly filmé wul moo Sénégalais yi kan moo filmé kooku buñ ko xamee xam ki rey eh nan génnee dëgg bi waaye bu leen ma tàngaloo ah na gaaw waay ma ne ko na gaaw. wala ma woon na bu en ñu xam kat woon na bu xaaral ma essayé mais gars yi bala ma woon na bu nag damaa bëgg King Saliou déglu leen ma bu baax si te plaît sénégalais yi King Saliou daf ma jox 4 millions pour ma maye ko ci live te man bëgguma téye xaalisu jàmmoor léegi 200000 abonnés. su matee ci telegram bi laay mayee cent mille cent mille ndax suba la màggal dugg leen ci sama bio sama bio TikTok bi am na benn link telegram King Saliou maa ngi ko fa def